Fatoumata Ndiaye euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM. waaw soxna si di nuyu di leen nga bokk ci Fouta Tampi. waaw maay coordonnatrice mouvement mhm. tey jii euh, euh, njiitu réew mi ñu wax ne mu ngi woon dans le nord nekk ci seen diwaan ñëw na fa jaar fa amal fa tournée ndax jot ngeen waxtaan ak moom ci lépp li nga xam ne mooy jafe-jafe Fouta. jotuñoo waxtaan ak moom ndax moom xam na jafe-jafe yi waaye dafa fekk ni muy doomu Fouta ñuy doomu Fouta ñu jógee Ndakaaru ñoom dem pour def seen tournée économique. Mhm. wala politique ah. donc yóbbu ay nit yóbbu ay oto. donc di def rumbaay ak mbumbaay ñu nit ñu am sañ-sañu Fuuta na mu sonnee soo sunu yëre yu xonq taxaw ne leen nag ñu waxoon amut lañu xaaroon ci yéen gisuñu ko mhm. war ne sunu mécan mécontentement sunu sunu naqar te fànn wuñu xeer defuñu dara taxaw waaye mbir mi dafa am beneen tournure mooy. mooy dañoo dem taxaw. Mm-hmm. ca côté marché ba fa président war a jaar pour bu ñëwee man ñoo gis ñu mën koo jox sunuy revendication yi ñu bëgg. Mm-hmm. ñu taxaw massivement naan futa tampi futa maa yi. Mm-hmm. donc gendarme yaa ngi taxaw waa bi a ngi taxaw. donc gendarme yi nag ñooñu njëkk a dóor ñoom parce que bu manee nee ñooñu njëkk a dóor. bi ñu taxawee tali moo nekk sama su suñu diggante ak nervi yi mhm. ñu ngi nekk beneen côté nervi yaa ngi nekk beneen côté yeneen nervi yaa ngi jógee côté garage ba fee mhm. di ñëw mhm. léegi bi ñu taxawee gendarme yi dañoo ñëw jël seen oto baare ñu ak nit ñi ñu doon seetaan ñun Mm-hmm. doon filmer mm-hmm. ñetti oto ñu baare ko suñu diggante nit ñi ci laa waxaa commandant bi ne ko yéen ngi ba fee suñuy droit ndax li ngeen def du yoon mm-hmm. parce que dañoo làq nit nu muy demee fi ñuy waxee oto bi ñoom ñu déplacé ko parce que bi ma bi ma kaasee droit yi ñu xam ne ne kii la muy wax euh, xam na fu mu ko teg te bañ nañ mbir mi xëy na am ñu ko yëg ñu déplacé benn oto bi dañu déplacé benn oto bi à notre grande surprise gendarme yaa ngi fa fees bi waa bi ba nga fa taxaw ne bii ñëw songuñu ni ñu taxawee nii defuñu leen dara dañoo taxaw rek ne bii songu ñu kon daal yéen da ngeen jàpp ne dañ leen encercler woon pour ñu mën leen a gën a euh, jëlee ci ndaje bi. waa parce que dañoo xalaat ne comme te taxaw nañ te gendarme yi tey ñun lañ fi nekkal. Mm-hmm. war a yor sunu kaaraange ak ni ñu fa bëree fees fa tey jii xool rek ay man maire bi ay bandi laa leen tuddee. ay bande recruté mm-hmm. lu toll ni homme de loi ay force de loi ñu mën a taxaw di seetaan man may jigéen ànd ak waaw waa mouvement yépp ñu taxaw ay nervi fekk ñu ñu taxaw defu ñu leen waxuñu leen mm-hmm. nangu suñuy pancarte xotti suñuy yére di ñu dóor di ma dóor ba daana ma ci suuf di ma dëggate loolu yëpp dund nga ko waaw ci teewaay force de l'ordre yi ñoom ñëpp ñu ngi taxaw benn gendarme moom mujjee ñëw jàpp loxo benn nervi xamaa garde du corps yi seen bopp jug jóg di jàmbaarloo ñoom parce que mu yóbboon samay garde du corps xamoon naa ne réew mi réew mu salfaañe la réew mi dem nekkatul réewum démocratie nekkatul yi réewum yoon réewum banditisme la réewum xokkatal la réewum néew doole réewum dóor nit la mhm. ci kaw loolu euh, dégg nañ ci xibaar yi ne am na ñu ñu jot a jël dugal leen ci ay oto yóbbu ndax loolu dëgg la ma la koy firndeel muy dëgg bu wér péng te du ay gendarme leen jàpp ah mhm. ay nervi ñoo leen jàpp dugal leen ci pick-up di leen yóbbu di leen dóor. waa ñooñ fu ñu mujj tey fu ñu mujj anañu. am na ñaar ñu ci bàyyi yi des na ñett. ñooñu lu ngeen leen déggee. dégg mbar fi may wax ak yow nii ñun maanaam pour ma jox la détails yi ba mu mat boo ma mayee ma développé ci parce que aduna yëpp may déglu. waaw. bi ñu nervi yi dalee kaw dóor ñu. dagg nañ sama baat. wéq ci dënn fi may wax ak yow nii. Mhm. maa ngi nii kenn xamul nu may nduru. Mhm. gendarme yi ñëw àtte ñu jàpp ma benn gendarme moo ñëw xëcc ma man samay garde du ñëw ñëw jàmbaarloog ñoom xëcc ma ñu rawale ma. Mhm. ñu daw mais bi ñu dawee dañoo ne daw bi du solution. ñu ñëwaat bi ñu ñëwaatee ci la commandant bi ñëw woo ma parce que maa responsable bi. Mhm. ne ma waaw léegi président fii day jaar da ngeen taxaw ni ñu encadré dem kenn du leen laal bu président ñëwee dina leen gis dina taxaw ngeen wax ko seen doléance ma ne ko loo ñuy wax ma wax ko commandant bi. Mhm. ma taxaw. war ñoo aar ñi ay citoyen yéen ngeen nekk fi di ñu liggéeyal ngeen taxaw jàkkaarloo ñun ay nerf bi di ñu dóor waa bib yëpp taxaw sans ngeen réagir moom commandant bi mu jéggalu mm-hmm. mais genre yooyu euh, débordement day am quand même. Euh, war ngeen ko mën a nangu. mais débordement amul parce que ñun dañoo taxaw rek ñu dara ñoom nervi ñoo ñëw da suñu kaw mais nervi bi ñu ñëw suñu kaw commandant bi taxaw waruñu woon jël suñu sécurité ak waa bi bi fa nekk plus de plus de deux mille éléments waa bi taxaw mhm. ñoom woon wax ñooñ waruñu woon que commandant bi bu fàtte ne tey foofu mooy territoire am la mhm. tey ci ndigalam tey la nervi war pourquoi ñun nervi yi lu tax nervi yi ñooy ñan ñun fan lañ jëm ak nervi yi pourquoi ñun ñu war ñoo mën a indi ay nervi ñu dóor lan la ñu def ba ñu dóor ñun yooyu ñu xeer ñun sàdd wu ñu xeer ñun violenté wu ñu ñun dañoo taxaw di xaar président Macky Sall jàll pour mu gis ñu ñu revendiquer suñuy droit mais bi ñu taxawee mun nañu taxaw leen léegi dinañ leen encadré kenn du leen laal. Mhm. président bu jaaree fii ngeen wax ko ñu ne ko ok ñu taxaw. Mhm. bi taxaw beneen côté bi encore ñu ñëwoon rek ñu renforcer waat gendarmerie bi encore renforcer waat ñu gën a bëri mais nervi yi aussi gën a bëri mais comme te ñoom wax nañ jox nañu suñu seen kàddu. seen kàddu ñu taxaw bi ñu taxawee di déer yaa ngi jàll ñun waxuñu dara du futa tampi futa maa yi futa tampi futa maa yi lii lañ wax rien d'autre mu jënte gi ñu leen naan ñu leen di wax non violence non violence ku seetaan vidéo yi di nga ko gis lii lañ leen wax taxaw bi ñu taxawee en notre grande surprise mooy cinq minutes président di ñëw ñu sànni ñu ay lacrymogène waa léegi lacrymogène yooyu fu mu jógee si ñoom si ñoom ñan ñoom gendarme xaw ma ñoom néeg bi mu ba tey mënuñoo wax rek Kër fii lañ jógee mënuñu la koo wax parce que affaire bi fu ñoo dañoo dañoo tiital bi ñu sànni rek Kër Masène ñu xool fa Kër Masène bi jógee ci la encore mérite bi ñu war dalal suñu kaw. kon daal ci résumé yéen jotu leen a wax dara njiitu réew mi tey jotu la gis seen mouvement. balaa njiitu réew mi di ñëw fekk na ñun effacé nañ ñu. tas nañ leen. tas nañ ñu dóor nañu salfaay nañu loolu yëpp méttiwuñu xanaa bu ñu dóoree sax. comme te léegi moom ay nervi ñoo yor réew mi ci néew bi la réew mi di dem te bu ci sénégalais yi jógul waxuñu ci lii àdd wuñu ci fu mu jëm du baax mais ñun dañoo génn samay garde corps jël ma uh-huh. ñu duggal ma sama oto ñu may rawale si la ñu dem fekk encore ñaari oto pikam nervi heureusement ñun jotuñoo yegg dañ ñoo woo wax ñu ñaari oto pikam nervi parce que dañoo jëloon benn kër loué fa ñu toog fa ñu noon suñu waa mouvement mbaa xam nga ñun ba tey duggaatuñu ci kër gi fu ñu loué woon fu ñu daloon ndax lan ñaari oto pick bu néew bi ñoo taxaw foofu duñu xaar pour ñu ñëw pour ñu yegsi ci kaw loolu ndax da ngeen fas yéene amal dara gannaaw euh, niñ leen buntu xattalee am ñenn si yéen ngeen ne ba tey xamu leen ci lu ñu ne euh, ndax dafa am euh, li ngeen nar. waaw am nañ lu ñu nar te lu ñu nar lu leen mooy dañoo fas yéene dénoncé bi xeex ko luñ ci ab jël ndax ñun duñu ay malien du ñu somalien aussi du du gambien ay sénégalais lañ ñu am nationalité sénégalaise charte réew mi may ñu may ñu ne ñun ñi bu ñu amee lu ñu métti am nañu sañ-sañ ñu takk morso yu xooku taxaw sans violence sans dara wax suñu métti mais léegi sañatuñoo wax suñu métti ñun ñuy xokkatal dañu boole ay néew yi ñuy dóor di ñu gaañ di ñu bëgg a rey à eh. ma grande surprise du ma xaar woon ci guddi gi mhm. man sama ñoom di jaay ku tudde Ibrahima Sow suñu waa dëkk sama ñoom di jaay ñoo obligé taal gétti oto ñëw pour gën maa jàppale génne ma dëkk war a soog yóbbu ma ba kanam kon nii yow dañ laa rawale fi ma waxaa yoon jibbi seen Ndakaaru pour te dire dañ maa rawale yóbbu ma yóbbu ma kanam ba géewe jot ñu taalaat sama oto parce que man dama yoroon oto bu ndaw àndoon samay garde ñu jaar ci àll bi parce que amatuma woon sécurité nerf bi yaa ngi doon wër. Euh, ci kaw loolu tey yan jafe-jafe ngeen bëggoon àggee njiitu réew mi. jafe-jafe yi bëri nañ ñu tënk ko rek. muy hôpital Wuro Sogi bi ñu ko inauguré 1977. Mhm. ba jonni yàlla tey amuñu hôpital digne de son nom lu toll ni Fuuta nu mu toll yëpp. Mhm. amuñu université. Mhm. lu toll ni Fuuta nu mu toll yëpp ak jeunesse Fuuta ñu génnee cinquante quatre milliards pour emploi des jeunes. Fuuta bokku ci ñun ñii tey jii bu ñu nee Fuuta ne daane maayo parce que dañoo daane maayo mooy dex dañoo am dex. tey jii bu tawee enclavement total la on coupé du monde. ñu ne déetawaay ñu am suñuy suuf yoo xamante ne ñun mbay dundee la ñu xam ko xam Fuuta xam ne mbay dundee la xam. Mm-hmm. suñuy suuf ñu nangu ko si ñun mënatuñ cee bay phosphate ndendoori bi. Mm-hmm. cent cent soixante huit cent soixante huit milliards. Mm-hmm. di génn chaque at droit de stationnement les camions waxaale wuñu ko Fouta gisul ci boppam jeunesse Fouta liggéeyuñu ci ñu bëgg a waxaa président Macky Sall ne ko ñun waa Fouta dañoo bokk ci Sénégal dañuy jox suñu ak ak suñu yelleef ñu ñuy dóor dañu bun xatal tey Fatoumata bu ngeen waxee ni tout va mal à Fouta ñu gis teer teeru gi ko euh, ñenn ñi teeroo foofa ca Fouta nan nga ko mën a jàngatee mais c'est très normal. Hmm. journaliste nga yow ma chérie. Hmm. gis nga tey yi ñaata oto lañ fi jël. jël bopp bu nekk vingt cinq mille vingt cinq mille. kon loolu dëgg na dëgg la donte am na ñu ko weddi. Eh, wuñ koo weddi. am na ñu ko weddi pourtant parce maa ngi lis ñemewuñ koo weddi parce que am na xam ne dañu leen wax vingt cinq mille ñu dem ba yegg. ñu jox leen quinze mille ñooñu bañ ba ñu def jàmmarloo ak ñoom ñu ne déetawaay fuuta foofu xam nga ñaata lañ leen jox. Hmm. ay cinq mille ak dix sept ak deux mille cinq cent. ñoo def loolu. leaderu fuuta yi. mooy ñan par exemple. ñoom ñoom ñoom ñëpp. du tudd seen tur parce que amaluñ ma benn intérêt mais ñoom ñëpp loolu lañ def dañoo luwee ay nit mais c'est très normal di am. mais yéen gis ngeen depuis ba nguuru Sénégal ba tey nguuru Sénégal ba tey. Mhm. mosu gis Fouta ci revendication dara. tey jii li ngeen gis Fouta ça va retenir dans l'histoire du Sénégal. Mhm. parce que lu mosul am Fouta am na fa. Mhm. donte nag gaañ nañ mais teewul sunu message jàll na. te nag on va pas rester là jóg nañ yee askanu Fouta gi yëpp te dinañ porter xeex bi. bi ba li ñu bëgg ci Fuuta ñu am ko. ndax tiitu leen ci pour seen ëllëg comme yow nee nga euh, dañ laa rawale euh, jële la foofu euh, yóbbu la feneen bu yàggul dégg nañ la tamit nga ne danga nga dem Touba toog far ngir sa kaaraange. waaw tiit naa ci ma ci. Hmm. ndax yàlla du ci sàkk ci fanweer dina ci fukk ak juróom. te combat bu noobul laay xeex. bu fekkee man sama bakkan bi dañ koy jël mbaa ñu tëj ma moo tax. ñun Sénégal gi tampi gi mu war fee jóge Fuuta tampeem gi war fee jóge mm-hmm. pare naa pour sacrifier sama bopp ndax si jihaad laa ne lu ma ci am jël tey Fatmata euh, ne ngeen euh, Fouta Tampi euh, tout va mal ñu mhm. gis ne lancé nañu ay liggéey foofa ba fa njiitu réew mi teewee muy yoon wi jëm Diatar Alwar ak it dorsale électrique bu Linguère Dioum ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne annoncé nañ ko fa yu mel ni université yu ñu laaj ak it ay ENO yu ñu inauguré mu mel ni tey seen ñaxtu dégg nañ ko ba tax na ñu ngi fay andi euh, tey ji ay infrastructure nan ngeen jàngatee mbir mi wala nan ngeen ko accueillir. waaw xam nga lu ñuy bañ. Hmm. ñun somnifères yi lañ sonn dañoo sonn ci somnifères yi. dañu nelaw ngeen ne dañoo bëgg rek ngeen dal. waaw duñu somnifère ñun ñoo nangootul somnifère benn yoon. Hmm. ndax damaa foog na lu ñu deful ci fukki at. lu ci ñaari at ak xaaj pose première pierre mooy lan. tey jii nii tey jii avion bi ñu jënd tey ji di ko def tey bu ñu la Fuuta ba tey dañuy gas ci suuf di ut ndox pour naan di nga ko gëm bu ñu nee ba tey Fuuta tey amul école yu baax fu ay nit jàng ci ay sàkke dañuy jàng di nga ko gëm bu ñu nee Fuuta tey am na ñoo xamante ne pour ñu gis bar glace c'est tout un problème bu ñu gisee bar glace bu ñuy jaayee fii fukki dërëm huit cent lañ ko fay jaayee di nga ko gëm ko foofu pourquoi pose ñu soxla ñu pose première pierre bu ñu nee hôpital Wuro Sogi bee bloc opératoire bi bu tawee tey jii léegi-léegi dañ koy arrêté parce que day seen ay tuwee fa nekk amuñu amuñu laboratoire malade boo am da nga koy évacuer yóbbu da ngay dem ba ba Wourossogui gi ñu jël ko ne la yóbbuwaat ko ba Touba mu defi analyse nga indiwaat ko. li doy na waar de yooyu yëpp a ngi waaw kon somnifère yi moo doy ñun kenn dootuñu naxati na mbaay bi dafa doy yeewu nañ te dootuñu nelawati xëpp nañ suñuy bët gis nañ slogan ne da ko bandum boobu moo fi jeex ne woon nañ nag président Macky Sall kii Fouta kii di foncier la man maa toogoon ne leen ku Fouta du seen kii di permis d'occuper a leen joxoon te wan nañ leen ko te pareeguñu ñoo ngi ñëw incha allah rabbi. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Fatoumata njaay di coordonnatrice bu Fouta Tampi. waaw ma leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di jaajëfal tout le mouvement Fouta Tampi ensemble Sauvons le Fouta mais may gërëm may may may jël benn sant ak ngërëm di ko sant sama frère sama allié muy Baye ñas koo xamante ne ku taxaw ku dëggal boppam ku ànd man ci xeex bi ku ñu dóor sonal ko te teewul bu delluwul benn yoon ginnaaw dafa taxaw dëgël boppam ma ne leen nag jërë ngeen jëf yéen ñëpp gis naa soutien wu ñëpp aussi maa leen gërëm ñëpp di sant ñëpp te naa leen nag le combat continue